Bonjour les célibataires. Hey guys, mag la willen weer, ween la willen maar. Please wait. Su nekkee YouTube nga ko seetaane, subscriber. Su nekkee TikTok la, please follow, nga like, nga comment, nga share. Xam nga naka la. Let's go. Ka am na. dossier Dossier Yango. ngoog. Ku amee dossier yi. Maa amee dossier yi. God have mercy upon us. Déedéet. Wax ñu lu tax ñu ñëw fii. We are sick and tired of men treating us like trash. You say what? maanaam duñu takka diñu foye suñu paré dem takka xalé yu ndaw ah loolu moom baaw Wow, wow. nee no ndoy mu ne ma seen ko airtime bu ko nangu ah bul nekk eegalam bi bu ko nangu mu ne dafa bëgg ma nekk side chick am bu ko nangu eh. bul nekk side bi nangu secret love buka nangu wow bulneka sigri fa buka nangu e eh, duma ko nangu he eh, buka nangu léegi may def affaire bi nga tej ko def si comme password mais comme mu jafe ni comme US pass maanaam loo mi bul nangu mu available ka dis fast food def ko mu réew comme ku win jackpot what o def ko mu réew ni comme ku win jackpot waa Spatlin xam nga ne man la waan abi ma nga xaw tepe koñ bi yaa leen daaji nga ne xaw tepe koñ nogurdia ya, maso sallah ɗo frek ñepa bugalu bahti mane Mana? Nyapa es yuswan mom waxuñ ci dara dafa fekk ñoom tam ñoo ko def seen boppa cikin ñu dem oto ñu dem ku ap ñu dem iphone ñu dem lu si des nag ñu ngi toog suñu place di manu di xar benn jamono